jërëjëf kooku allo allo kooku mooy micro bi ñëwul de allo allo allo may nañ xaalis au sud loolu may géwale xaalis waaw busi busi leen allo allo gaan sa micro bi ñëwul de allo allo allo ah drapeau Papa Yade la ndem si yàlla Papa Yade au sod bu écrit yaraax war ko bëri ak nga xamante moom mooy caatu fora écrit lamsaan jërëjëf Osod bëgg nañ la bu baax baax di la comme ni ma ko waxee rek yéen ñaar yéenay bëre drapeau dem si yàlla papa yaar bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi mbokk amateur ak waa waaw mbooloo bi gannaaw bañ sant yàlla di la séenante bi di sant sama yaay di santaat sama yaay di ñaan sama papa fi mu nekk gënal ko fi mu jóge di gërëm monde entier di gërëm waa Yakaar tamit yëpp xam nga di leen wax ne seen doom Osod ñu def face à face quoi di nuyu tamit ñi ma àndal ko ci mel ni Bàcc Mbaye saa Yakaar booy naar zàllaadum xam nga di nuyu tamit xam nga monde entier quoi di nuyu tamit xam nga ñoom Kalaam GP. jërëjëf su mel ni xam nga ñoom Serigne Diouf Serigne Kara Sène nuyu waa yëpp. di nuyu tamit ñoom Lat Diop xam nga di tamit euh, kontaan. nuyul ñëpp rek ñu gagné tamit drapeau Papa Yada fi taxaw yëpp. xam nga ñoom ñoo am yow a. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci bi sant suñu ñaari waajur waaw di sant waa jàmm gën foora di nuyu sama mbokk halpulaar yi bandiraaɓe halpulaar kala mbiyo mbiyo mbiyo en to mbaala wonde fof mbiɗa nodduma mbiɗa yeeyi combat mine mamadou diamme mbiɗa ñaagui ndam di woo di sant ñi ma àndal yëpp sama nijaay ak sama grand ay abu ah, ay kolifay ak mafia onda bi ma dar tey sama nijaay dox sa garde idda valdo wëcc DG ah ak Omar Touré mi ñoom indi otoom indi ma di ko nuyu nuy samay nijaay di nuyu waa jàmm gën yëpp léegi waxal ci jàmbar ji maa ngi nuyu tamit ñi présente drapeau bi eh, di wax geste bi nice na di leen bëgg bu baax di ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam waxal ci jàmbar ji drapeau dem yóbbul leen ko ci jàmbar ji kii li may wax si moom bëriwul hmm. na dëggal boppam rek tapet la bu dëggalee boppam du yàgg yàlla baax na incha allah bala le 24 mu ne ndax di nga dëggal sa bopp xam nga mooy bëgg kii nga mooy laaj ndax naa dëggal sama bopp wala déet kon biti hmm. la fanaan quoi. mbala 24 incha allah. moom rendez kii daa nekk dafay émission di pokoleeru di jaay di ci làmmiñ li nga xam ne làmb pare nga si yow. bu neexee yàlla dinaa la daan incha allah avant tout. di nga ko daan ñëpp na si ñëpp jàpp incha allah dama koy daan. foo teg lool bu xeexee du yàgg bu bëree du yàgg. Hmm. kii mag la làmb da ko fee bàyyi nañu xajal ñu dem. wala yàlla baax na ba léegi. waaye yàlla baax na ba le 24. dina xam ne lépp dëgg la incha allah quoi. naa ko bàyyi ak wax ji muy wax rek. Hmm. man li ma waxoon ba tey ci laa nekk. muy lan man suma liggéey def li ma war a def incha allah le 24 ma delloo ko place am incha allah. loolu am na solo kan moo fi teewal papa kan mooy jëru discours bi aywa ku baax jege si sama xarit aywa teel ma ko teel rek nga ñam li mu soxla aywa jàkkaarloo caméra yi danaa ko bi seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñuy waajur bu baax a baax a baax di sant waa Tëngéej yëpp di sant gaay yi si ginnaaw nii yëpp ñu si mel ni Ronaldo Sougou maam ñaaw yàgga si moom baabu kala alfa yàgga waaw di ñaanal gàmmu ga yàlla nag suñu borom may ndam lu gaaw di jàllale benn wax bu gàtt rek moo gën a Tapha Mbeur du ma gàmmu gay loolu rek laa siy wax parrainage. du ñoom waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di wax ne drapeau bi ñu tuddee nii. non dañoo dañu jële kaw daal. macha allah loolu am na solo yàlla yàlla yeesal amul kenn koy nangul bay bala Babacar moo tax ki war laa ragal. laaj ko loolu lan la ki dëkk yaraax. li mu gis si man ba ragal ko danga koy laaj mu wax la. mais yow itam au sot noo mën a def di ragal kii. xam ne kii dafa neex di wax rek. waaw neex la def nii di wax rek. mais yàlla xam na ne incha allah xoolu moo tax moom. xooloo 24 incha allah naa ko war na du man ak moom. soobee yàlla ak yow. di nga ak moom man ak moom. ci bëre ci xeex. lu mu indi rek ci bëre ci xeex lu mu def rek man arrangé na ma man moytuma dara ci combat bi si moom. Ah. incha allah maanaam bi nga ko gisee nii jàpp nga ne liggéey nga lum liggéeyul non naanaan la liggéey na def na lu mu mën a def liggéey na parce que combat a liggéey combat bu mel nii ku ko jël foog nga liggéey liggéey naa mu liggéey mais la fetkat la loolu di leer man léegi sama bopp laa xam quoi xam nga mais gëm nga ne boo ko jàppee lamb ji mën naa jeex incha allah ah. su ma ko jàppee du dem parce que nee na ngay toog sa koñ di wax rek nga gis ko fii mel ni ku ko ragal li ma doon wax laay wax ba laa nekk ba tey incha allah la fetkat ma war na ko du man ak moom boolu ci loolu laa wax fu ma taxaw te loolu laay confirmer incha allah le 24. liggéey naa li may liggéey mbele mbele nag coow la ko waaw xam na xam nga laam bu ñuy coow di wax di wax ba mu def presque une semaine wax di jaratu ko. mu dëggal boo xam ne 24 ma dëggal sama bopp xam nga ma jàpp ko daan ko. yee eh, noonu la demee. day sóob bu def dara bis baa maay bëre maay daan bu neexee yàlla. waaw ah. moom mën na mën a jàppee mu jeex. non day sóob rek koy day naxay mbokam rek. Ah. ma jàppee mu jeex fa maa ko mën fuuf bu neexee yàlla dama koy daan amul sax xalaat kii ah. mu mënoon dina toll fii fu mu ah, làmb dox la daa doxatul ama kii raam ak kii dox mënu ñoo bokk moom daa raam ñun ñuy dox ba romb ko kon nag nañu xajal la dem ci nu ko neexee nag bu seddee si moom la bu bëggee tamit mu tàng ça dépend moom rek fii dil bi baax la. amul ko muy seet non non amu ci loolu bu koy xalaat sax day nax boppam. Hmm. waaw. mooy da ngay raam. non kii le 24 la may nangul moom. le 24 lay waaw na wax lu ko neex mais la 24 ci la may nangul. incha allah teel sa lii. man nangul góor. teel ma nangul ma nangul góor. du nangul góor. jaay mu yow di nga yow di nga foog yaa ma ne pompe fu nga ñëw di jéem a xëy xëy di defoo ko ba benn kaa koy jàpp lépp dëgg la jigéen nga caat arrière la non non bàyyi leen délai arrière leen arrière caat caat arrière caat foora. waxal lu neex ci bis ba doomu jege arrière arrière waaw def leen nii. waaw nii a man man man damaa bëgg laa ñu xam ne du xees moo wóolu mu bëri man damaa ës bëri di woo jàmm nga terki amuñ seen fay sama mbokk xaal pulaar yi di woo ñëpp waa Fora waa Diaobé are am tablo xaari di nuyu ñi nekk ci kaso bi suñu grand ay ñoom Serigne ay Ibra bu Ndaw ay Papa ay ay Papa Demba ay Fall ñoo ñëpp ñu leen di ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm ñu ñibbi ak jàmm képp kuy doomu jàmm gën ak foo mën a dëkk rek bu la caabi féetee ginnaaw ñu lay ñaanal yal na la borom bi defal bàyyi la si jàmm bu tëdd aw la hôpital yal na leen yàlla suturaal si jàmm ñi dee yal yàlla yërëm ñu di woo ñëpp su ma limee damay dund mais di woo ñu may jàppale rek gars yi ñoo jàpp suñu heure suñu maire suñu grand ay ñoom Bala ay Cheikh ah ay ñoom Madaar ak Fatim Alpha di woo ñëpp nañoo jàpp jàpp parce que lamb la yoo ne lamb capital la ñun dañu koo soxla néew ñu ngi daal di raay raay la ñëw gën a di nuyu sama nijaay waa kër gi aw seen fay kenn. sama baay sama tataay di nuyu sama yaay bu baax ko ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm ba mu fekkee suñuy mbir di sant ñi ma àndal moom yàlla am daal woo ñu DG di sant Sida eh, ji di sant gaay xaw ma seen fay bilaay gaay lu ne la ñuy daj. dara di taw féex rek di wax sponsor kala kàjji production non non ah, ma kala. ma jox ma la. sponsor bi tamit ah sponsor bi ñu soxla tamit waaw ñuy kontaan ñoom ñu sant sama sëriñ sëñ Fallou Fall sëñ Sidi suñu wasi la amuñu fayal di wax Mbacke Balla comment ça va loo def mooy loo gën di nuyu doole di nuyu doom moo koy sama maraay bay ñaan li ko wóor leen bay ñu nekk Touba nekk Ndiodio ñu ko waa Ndiodio waa Diola waa Juwaalo waa Fayla waa Munde waa Marwoñ Mar Fapko di woo ñëpp di woo waa Jira Jola ñëpp ñoo yor xale bi ak famille bi yëpp laal yooyu dañ ñëpp teg loxo ndax lu ñëpp nga jënd jiw. loolu ma waaw dama leen nuyu sama mbokk ngal kontool ngal jaay la al dimanche bi kon ko baal soto alim sa duwaala alim sa duwaala fo nga victoire o soto di tam sama mbokk si Simon maa koy woo ci combat bu baax a baax Simon Ndiédiène ak waa Sokone waa Djilor waa Joal waa Fadiouth waa Bassoul waa Bassa xam nga di waa Njaay Njaay xam nga di woo waa Ndiédiène bu baax a baax a baax a baax di woo tamit sama fan club bi yëpp quoi di woo tamit sama benn yaay boo xam ne mën naa tuddee combat bi nekk Ami ak doomam Pa Fall Tafa Fall xam nga ak ñoom ñëpp maa leen woo ko quoi di woo tamit bàcc mbaay bu baax a baax sama waaye la sama grand la xam nga ne la du ko béggee bu baax ba di woo tamit waa Yarax yëpp ama zot bi maa leen di woo di si Mami Diaw xam nga di woo tamit ñoom xamak sëy ak boy mbalaaw yi ñoom ñëpp na gars yi waajal bu baax a baax baax xam nga le 24 incha allah di woo Serigne Diouf bu baax a baax di woo Serif Assane Laye Baye Seex borom États-Unis maa ngi baax a baax xam na bu baax a baax mu ñëw jàpp ci combat bi yàlla may ñu ndam xam nga di woo tamit Kader Fall kii Ndiaye Idi Mané xam nga di woo monsieur le maire Babacar Mbengue xam nga. waaw nee jàpp ci combat jërëjëf